Sénégal la dal waaye ca Mali la ko dale ca Mali dañoo yor seen société fii di liggéey yor seeni camion muy dem ak a dikk waaw waaw waaw waaw waaye mbootaayu xeet yi nag luwee seen camion yi mhm. teg ci ay conteneur rek seeni bagages munissement mooy miss mission yooyu ngay gis noonu pour de la paix au waaw waaw loolu waaw yenu ñu dem. Mhm. ñoom nag njort nañ xalaat nañ. ne mhm. Mhm. ña leen song mënul nekk lu dul rébellion ba. bañ leen songee nag taal seeni camion dañoo taal camion yi. taal taal ba mu ne jëppet. Hmm. taal laa la wax de taal heureusement nag jotuñoo rey chauffeur yi. heureusement. waaw kay ñoom nag fi ne ci googu la ñu ne. waaye nag dañuy yàq ci alal itam daa bëri nekk. Hmm. ah yow waxuma la dara camion bi rek alaaji valeur la. wallaahi ne leen waaye conteneur yi ñu tegoon ca kaw camion ba. ndeysaan. bagage wa Nations Unies. ñooy maintenir paix ba foofu. ana ndaw si si maire. ñu société de transport et de logistique euh, fi ci Dakar ak Sénégal euh dans le cadre de nous avons dans, le cadre de notre euh, travail, nous avons fait notre transport pour nous def djem ci Mali comme d'habitude. Nous avons fait def. Donc, euh, nous contractons Kofi à Dakar avec euh, pour 5-6 euh, camions. Euh, nous avons Mali. Nous avons Bamako. Euh, di dem ci yoon bi euh, trois yi euh, quatre yi ñoo waroon yegg yeggali dem ba gaawo ñeneen ñaari des Bamako quatre yi dem gaawo trois yi bi ñoo njëkk a jiitu dem ba dëkk buñ naan yàppatuma turu dëkk bi tout juste ba ñaa ñu yegg gaawo rébellion malien bi ay rebelle songu leen foofu ci yoon bi mënuma wax rébellion malien bi la sax mais rébellion ay ay ay on les a attaqué donc foofu nag dañu njort ni rebelle yi ñoo fa nekk mm. donc attaqué leen Euh, jël sunu oto yi yóbbu leen xëcc leen ba ci àll bi ak chauffeur yi lakk ñetti oto yëpp te fekk na ci kaw kii mu fa tege woon ay bagage yu munissement lañ doon yóbbu. lakk wala taal. dañ koo taal lakk ko yëpp fekk ay conteneurs ñu ngi tege ci kawam. Euh, yoo xam ne bagage waa munissement la la mission de de l'ONU la pour la le maintien de waaw de la sécurité de la paix au niveau de euh, du Mali. bagage lan la woon. maîtriser ma sax bagage ci biir ci ci biir lan la woon mais certainement ay jëmtukaay pour pour donc euh, police bi de def na enquête de ambassade euh, en relation avec la gendarmerie de def constat ak de euh, mu de de vraiment dafa dafa dafa de dafa de e am cinq auto six auto bu ci ñett vraiment de dafay de sunu liggéey dañu am ay emploi yu de de c'est dans c'est une semaine, je dis le one, je Niger taille Donc, euh, d'ailleurs, il y a que ce nous liguer. Euh, waxuñu ñu dara lu leer waxuñu ñu dara lu waxaguñu dara lu leer ambassade bi moom déjà ambassade du Sénégal au Mali déjà nee na nañu ñun nañu nañu déployer les moyens pour que ñu indi suñu chauffeur yi loolu daf ma bett parce que ma sañ dama yaakaaroon ne doomu réew bu ñu génnee dem ba extérieur ambassade bi nekk fi diggante Mali ak Dakar war nañ leen ñoom jël en charge indi leen ñu fii tout tout c'est sûr que c'est des gens yoo xam ne suite à cela chauffeur yi dara dalu leen dama yaakaar ne suite à cela ñoom dañuy xaw a am tuuti traumatisme kon bu dul dara ambassade bi waroon na leen jël en charge indi leen loolu ñun ça ne pose pas problème ndax ñun suñu ay chauffeur dañ leen ni dañ leen taxaw à moment mais c'est un fait bu nga xam ne dama koy souligner pour taxaw bu ñu sañoon ambassade bi taxawu ko moo gën entre Malek fii xam nga ne déplacement bi cher pour ñu dugg oto ñibbisiwaat ci jàmm ak salaam mais bu fekk ñoom dañ ñu topp sur des miettes mënuñu ko def vraiment loolu daf ñu jaaxal mu mun nañ ko def amul benn problème parce que ñun suñuy chauffeur vraiment dañ leen di encadré camion yi lakk na jeex photo yeeg vidéo yi yëpp a ngi fi yëppaa fi mais comme quoi dañ ne nag léegi man nguur gi lañu ñaan mu taxawuñu mu taxawuñu suñu entreprise pour que parce que ñetti camion yu lakk yëpp suñu auto la ñun benen chauffeur auto lakkul beneen benen amna yenen chauffeur yu doon daw ci yoon boobu mais seen oto lakkul ñun la tis bi tax suñu suñu top dal suñu euh, kaw légui ñuy ñaan gouvernement bi mu jàppale ñu parce que même dañu yaakaar ni dans le cadre de la libre circulation des personnes et des marchandises dans la zone UE CEDEAO euh, nguur gi war nañ ne ci teg te waroon na ci teg kaaraange goo xam ne ñun bu ñu jéggee di dem Mali dafay dañ suñu sécurité dañ koy garantie dans le à l'étranger mais tel n'a pas été le cas parce que jégg nañu frontières yi dem ba foofu te gisuñu kuñ ne moytu leen fii nangam nangam wala nangam nangam escorte bi ci waroon am aussi Euh, MINUSMA defu ko euh, pour pour parce que ñoom ñoo yore sécurité ba foofu defu ko par rapport ak euh, trans transport de marchandise boobu ñu doon def. Mm. donc ñun daal mënuñu lu dul jokk ci sunu nguur di président Macky Sall mu bàyyi ñu xel jàppaleñ ci situation bi ñu nekk nii ndax ñetti camion ku ko lakkale si sa biir parc bu ndaw ngay PME yore ay emploi bëgg Sénégal jëm kanam. chauffeur yi sax dañoo yeyul ndimbal. chauffeur yooyu. chauffeur yooyu sax bu leen kër docteur Alaaji taxawul. ak seen ñàkk liggéey rek. waaw waaw waaw waaw waaw wax nga dëgg de. looloo nekkoon seen bureau de. bu leen ko ne xeebal de. seen chauffeur yaa googu de. Mm-hmm. Ah. ah. waaye ñooñu ñooñu taal yooyu noonu tamit def nañ lëf de. Hmm. ah nañu tudd. ah nañu tudd. ay rebe. ah jeex na mooy am nañu sañ-sañu def leen neex ci maa tey. day jaaxle nag si yàlla suñu nañu sañ-sañu def lu leen neex ci ma hmm. lay tekki. assurance nag. assurance Malick Diop yow da ngaa gore. <laughs> mais li ma jaaxal mooy da ngay teg société bi tamit Sénégal après da ngay wax tout sauf assurance. Hmm. war nañ cee wax tamit Sénégal assurance yi de. jarta saa gënee nag. dégg nga bàyyi assurance yi doom. jarta sàgganee danañu koy bàyyi. jarta sàgganee de liggéeykat yi sax alaaji dañ leen a sàgganee côté assurance. lan moo tax. liggéeykat yi. waaw liggéey assuré wul alaaji. déet mais alaaji kaay alaaji fii ñaata nit ñoo fi accidenté laa lay wax nii saa waay di ñëw fii ci taatu rajo bi te fan fan lay mujjee. bokkul ci assurance bi. no da non loo non sàggal ko googu nag moom moo mais yow mii sax yow sa oto yoon lay def choc nga ne ma de tayal naa ci demante assurance baa ma réglé sama bopp. non ndax yoon bi muy jaar processus bu awee yoon day gaaw de. ah non alaay non alaay. <laughs> alaay Sénégal lañ la wax de man damaa yow oto mu accidenté ma lijjanti ko. waaw yow sa assurance assurance bu ma xamul dara. yow sa assurance non non xam nga euh, yoon bi muy jaar mooy. Mhm. ngay dem ci atelier toléré bi nga xam ni. Mhm. ki moom atelier bi am na papier c'est-à-dire que am na registre am na de commerce ak NINEA bi wane ne am na entreprise mu ñëw comptabiliser ces sa dégâts matériel nga boole ak constat wu police dem yóbbu ko ci assurance ba assurance ba ci du am 24 heures mu retourné ko ñoom ci seen beneen expert Bob, kooku mooy dem defi contre expertise par rapport ak yow les bi la defaloon sa dégâts au matériel léegi nag ci expert bi nga xam moom mooy defi contre expertise moo dul am temps léegi nag yow bu fekkee dem nga waxtaan ak moom mettre ko pression balaa am deux semaines mu dem defiwaat sa oto contre expertise ñëw defal rapport am waat ko ci assurance ba balaa am deux semaines ñu fay la sa xaalis. Mm. man kay dama dama abbu oto jàmbur def ci accident. à l'espace de trois semaines fayeeku naa xaalis bi. waaw Alaaji déglu ma expliqué la euh, Alaaji. Euh, exception nga ci ci ci ci xaw ma ñaata. non déglu ma expliqué la nit ñi tayal dañ demati assurance. non non non tayal googu man laa ko wax dañoo xamul yoon bi rek. non tayal mais non non mhm. parce que yow. voilà duñ la gaaw fay. non dama ne. tayal duñ la fay sax dama ne tayal googu ci boppam laa bëgg a wax. Mhm. Sénégal am na yenn yoo xamante ne nii dañ koo dañ koo dañ koo. banaliser waaw kay. Mhm. sénégalais boo ko ndax am nga passeport mu ne la man waaju ma tukki. da ngay def auto école mu ne la ah temps Mbaa du damay waaj am école. Mbaa mhm, mhm. damay waaj am oto. waaw Mbaa mhm. ah, du temps damay waaj am oto waaye. c'est ça. te dafa am ay këyit yoo xam ne alaaji koo war a gàlloo. denc ko. farata la nga am ko. waaw waaw. li ñuy wax ne léegi oto soppeeku na léegi ba doon portable. portable ay temps luxe la woon léegi nécessité la. alaaji ay temps boo yoroon portable cat li ngay téye. Mm-hmm. def nii ci kaw pour wan nit ñi ne man dama am portable. léegi romb na sa nécessité daanaka sa mu wàcc sa mu wàcc la. voilà alaaji xëy si bàyyi sa téléphone sa kër. Eh, da ngay dof da ngay mel ni ko dof. da ngay mm-hmm. mm-hmm. léegi nag assurance moom comme ni ko doom ji waxee. Sénégal am na nit ñoo xam ne dañoo jàpp ne. dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo war di eh, bàyyi xel daal wàllu. Euh, assurance assurance. même assurance vie sax alaaji boo koy wax. assuré sa bopp ak njaboot geeg yooyu nit ñi daan ay saa ma jàmm ay gars yi saa yow saa ña te alaaji feebar accident dee yii yàlla da koo moolaale ñi na ñu ànd mm-hmm. ah mais loolu loolu kay loolu nag waaye da ba bàyyi ni kët ni cëg nga tàmbali fu ne nga dugg fa dugg fa waaw am na it yenn ci assureur yoo xam ne alaaji mhm. ñu xam laa ñàkk laa xama ci bokk yem mhm. boo jaaree ci voie normale dana sotti day sotti mhm. waaw wallahi li ma la ni li ma la ni booba sax li may liggéey waaw alaaji mu am na souvent yow du xam parce que mécanicien bii nekk fii bu la defalee estimation wu dégâts boo ku duggee ci dossier bi dañ koy rejeté parce que moom amul papier bi wane ni moom mécanicien la parce que structuré wul amul kayit pour am entreprise nga dem ci mécanicien bu structuré. ah mais bien sûr. Mm-hmm. noonu lay demee da nga dem ci mécanisien ak toli bu structuré nga boole ko kayitu constat bu police am na ñoo xam ne xamuñu sax dem police laaji seen seen copie constat. alors da nga dem police ñu jox la. copie constat naa ko yooyu yëpp ba tey moo mooy loolu. c'est vraiment facile. ah Alaaji. waaw boo jëndee boo jëndee fukki million. waaw mu def mu def shop. Euh, kenn ñaanu ko yàlla nga ñu wax laa fay du la jaral dem dem commissariat bu parcelle. wax dëgg yàlla. bañ a dem bañ dem. man ma ci xaw choqué mooy femme bi wax na ba daaneel. ki la doon defar rek dimbali ci camion yi mais waxul benn yoon assurance sa oto bi bëkk démb. Euh, euh, waaw. dafa structuré ci entreprise bu mag lay liggéey ñu mel ni moom nag bariwul pour am këyit boo xamante ni bu la ko defalee boo demee boole ko si këyitu constat dina valable. dëgg la dëgg la. <coughs> laaj awo yu ndaw yi xam nga lu ñu xewal. Hmm. ñu ñàkk kalas. <laughs> lan yi mag dafa fii ma ngi. wala ah, ay ndey boo ñàkk ji su a xaw a rus léegi yéen say am ko ne ma alaaji rusal sa yaay ji moo tax te aaw ndaw yi lay wax bu ñuy soog a dugg ci sëy waaw dañuy jéem a wane ni. Hmm. kenn amu fi place. man la astu mu amet. Hmm. man la nogay mu birayim. dañu soof. man la kodd mu Mansour. di jaay di gu forox. man la man la man la Adja nopp jëkkëram. <laughs> xoolal bu ñu toogee benn moment. Kam den nou boy konon eksplege ki page Facebook om Modou la verite Mouni Eladji, sou yi bi koumanse ap nyol nyol Ni koumanse Ni koumanse dan ni Patoun nek mdayem Patoun nek mdayem <laughs> Sigan nek bayem Denet, ah, aleman, yayou salew <laughs> Denet, aleman, yayou salew Senen Yayou falon moun daw <laughs> Degoumane Apsa Yayou ab salade dépouillé la lay may. bu sëy ba tasee nag. wala wala la femme blessée. alaaji <laughs> bu sëy ba tasee bu sëy ba neexee. Ah. déedéet déedéet bu bu bu déedéet laataa moo tas. waaw bu amee ay gànk gànk ba mu ñibbi këram fay. waaw léegi mu daal changé na profil de. dóor wuy ma uh-huh. amee mu fàllu. mu fàllu mooy maanaam mu sëñ fàllu mu sëñ fàllu. <laughs> amee mu sëñ saaliw. wuy ma wuy ma. af sa bu sëñ Babacar Si. boobu lañ lay may <laughs> ba def ba def ba def entre parenthèses yi. dóor RTA bi radiyallaahu taala <laughs> a parce que tas tas nañu boobu. waaw boobu ñibbi nañ. boobu ñibbi nañ dindi dindi nañ dindi nañ dindi nañ kii dindi nañ nogoy nogoy mu <laughs>